a màgg cette fois loolu moo gën a màgg mooy bu mujj bi. non dama dem am c'était moins violent non xam nga sax am na ñu ma gis ci plateau de télé yi comme ni ñu koy defee fu ne di fu nekk ñu dem naan jeunesse bi ñoo ko yuuxu wala peuple bi ñoo ko yuuxu c'est archi faux. ñan ñi ma yuuxu mooy encore une fois li ma wax léegi rek ñenn ñenn laa wax ñenn ci militant Pastef parce que dañoo taxaw sama kanam xam nga nit. boo taxawee ni dégg nit mu jàkkaarloog yow naan la yow bëgguñu la diw lañu bëgg naan ma nanguloo diw moo tax ba egg ci li ma li ma junj keroog daal di wax ne sax ñun te keroog wax naa ko euh, ma leeral ko fii ma préciser ko daal di wax ne nga xamante ni ñoom yàq lañ jublu ak jaxase ak tas réew mi daal di ne ñun ay joolaa lañu Ousmane la ñuy topp ma daal di jël sama responsabilité daal di alerter. gis nga tamit keroog bi Ousmane defee sotteem bi gis nga li nga xamante ni xew na ci mooy am na yeneen communauté yu jóg tamit di ko artu man suma responsabilité en tan que homme politique mooy ma alerter su ma gisee loo xamante ni fa mu jëm baaxul bi fi am soxna soo xamante ni dafa tudd Penda baax bi mu fi jógee dal ci kaw wolof yi loolu daf ko jural ñu topp ko ba yóbbu ko kaso mais su ma déggee loo xamante ni jàpp naa ne lii kenn waru koo wax ci mbooloo jëmale ko ci un acteur politique bu mel ni man mais koo ak koo mën a doon mais dinaa alerter artu may ma rek ma jeexal foofu parce que lu am solo la parce que dama dégg nit ñi wax ci lu bari dinaa artu pour diir plus jamais sax parce que tey man mii wax naa ko keroog ci conférence de presse bi wax naa la léegi ne la awma sens interdit ci Sénégal suma maam bi jur suma jur bu jigéen Béy Kunda ci biir Ziguinchor la jële soxna ma miin Ziguinchor trop di fa dem di dem Casamance xam ko tey jii lañu fa installé ci cellule dans le Pakao comme dans la grande Casamance kenn xamul nu mu toll ci ay cellules nit ñi dañu jàppale foofu nekk ay responsable ci sunu parti mais loolu su ma ko waxee je le fais parce que dama dama xam ne réew mi ak ak cohésion sociale bi ak cohésion nationale bi loolu dara waru koo dindi te dara war kenn warul jouer ci fibre yooyu man je ne suis pas un opportuniste politique je ne suis pas un rentier d'une quelconque tension je ne suis plus un analyste politique je suis un nom politique et j'aspire à être un homme d'État xam nga lii dama ko wax ne nit ñi bu ñu lay déglu nañ la déglu ak xel bañ la déglu ak seen xol nañ la déglu aussi pour xam li ngay wax bañ laa déglu pour tontu la te gis nga léegi ci suñu espace public li ci gën a metti mooy nit ñi déglootuñu la pour xam li ngay wax. mais Pape Djibril xam nga Léopold bi muy jiite réew mi mm. temps yooyu Sénégal tollul ci benn niveau benn niveau d'éveil bi ak niveau démocratie bi mm-hmm. Senghor il a bâti une nation mm-hmm. gis nga li ñuy wax fii yëpp tey mm-hmm. xëy na am na lu bari loo xam ne amoon na mais dafa imaginer ay stratégie ba teg une nation tey li ñu boole tey mooy notre commune volonté de vivre ensemble. Mm. on est une nation. Mm. Euh, et Sénégal dañ ko bàkkee cohésion bi yéen yi. Mm. est-ce que c'est responsable ay militants quelconque c'est pas un responsable connu de Pastef moi j'aurais compris qu'un responsable connu de Pastef taxaw wax la loolu kooku da nga ko war a dénoncer mais ay militants ay xëy na xale yoo xam ne xamuñu sax li ñuy wax ah wax la loolu est-ce que yow war nga ko porter ci kaw est-ce que du yow yaay jox écho. Euh, cette affaire-là. su fekkee ne bu ma ko joxee écho mu dakk ma jox ko écho. mais du tax mu dakk parce que. ña koy wax xëy na xamuñu mais mun a mais lan moo tax nga jàpp ne xamuñu. non. c'est pas des mili c'est c'est pas des gens connus mënoo leen identifier. ay jeunes ñoo ñëw jàkkaarloog yow ne la. ñun diw la ñuy woteel parce que diw parce que diw diw lii la. may mun a may mun a mais mi am. may mun a nga may mun a xam nga. yow yow xëy na yow yaa ko jox écho. may mun a xam nga xam nga tamit dama bëgg rek ñu wax lu ñu xam. xam nga xamoo ñi doon wax. xamoo fu ñu bokk bu dee xam nga leen. waaw mais déglu ma non non déglu ma la rek c'est pas c'est pas parce que illustre inconnu nga ko amuloo solo. mën nga nekk koo xamante ni anonyme nga nit ñi xamuñu la te fekk na fa nga ne ku am solo nga fa man damay artu damay alerter damay dànkaaf un homme politique qui n'a plus le courage d'alerter mais il arrête d'être un homme politique dafa am loo xam ne dafa bokk ci suñu ci suñu socle de valeur culturelle ki ma bokkal koñ laa gën a jege ki ki ma bokkal quartier ki ma dëkkal Wakaam laa gën a jege ki ki nekk Médina et donc xëy na su ma dajee ak yéen réaction bi du doon benn man damay tooñ parfois boo waxee ma ne damay jàppale kii dama dama bëgg diw parce que séeréer la mais loolu du botti compté. xam nga loolu. yow tey boo xam nga et puis et sax yow waa caajaay nga. xam nga da nga ne sama mbokk xam nga ne nga ne da ne da ngay tooñ moo tax. xam nga ah? jamono nga jamono. boo loolu dafa teew ci ñun. Maymuna c'est très sérieux li ñuy wax nii xam nga du. jamono booy tooñ xam nga xam nga moment bu ñuy tooñante parce que Sénégal dafa am cousinage à plaisanterie yooyu yëpp yu am solo yoo xamante ni richesse bu ñu fi fekk la mais jamono bu ñuy tooñante jam bokkul ak jamono booy yuuxu nit di ko saaga di ko wax loolu may mun a encore une fois dafa am loo xam foog nga nangul ma ko mooy man ma vivre situation bi. non. c'est loolu mooy bu njëkk beneen bi mooy Sénégal rek laa am Sénégal rek laa bëgg lépp lu ko yàq. wala lu koy tas tey jii sama vidéo bi nga génne nii mënoon nga génne waat vidéo bu ne lu dul dégg nga may wax may woote jàmm ci dëkk bi c'est-à-dire que mësuma wax lu dul jàmm mësuma wax lu dul teggin ñi ma xam yépp ci loolu lañ ma loolu lay dox xam la moo tax ma ragal homme politique yi di porter discours boobu waaw parce que l'impact peut être dévastateur xam nga xam mën na bañ a doon tooñ sax euh, affinité linguistique euh, affinité géographique loolu dafa dafa dafa am Euh, pourquoi ñu naan un fief électoral affectif pourquoi au Fouta et dans le Sine les gens votent pour Macky te Macky xëy na am xëy na forcément dafa leen dara xam nga keroog tey man tey jii la ñuy installer sama cellule cannelle c'est-à-dire que dama la bëgg wax ne la loolu homme politique Macky Sall laa ci jiital keroog dama ne warul woon a nangu sax waa këram taxaw naan Fouta titre foncier la mu bàyyi leen noonu ñu koy wax du titre foncier xam nga ña ne fii Fouta titre foncier la loolu moo indi ñu bastonné fa ñoo xamante ni dañ leen fa dañu fa demoon mu président dem fa ñeneen contesté protesté ñu bastonné leen parce que dañu jàpp ne foofu tiitre foncier la benn baat rek a fi war a am benn couleur rek a fi war a am. mais loolu c'est un gis nga man fu may dem c'est un simple slogan politique gis nga man fu may dem y a toutes les y a toutes les formations déglu ma wax ma wax la nga fu may dem fi mu ne. ci àndandool di def politique xam nañ ko dama naan leen su may ñëw fenn invité leen ku ànd ak man ak ku àndul ak man. je suis l'un des rares hommes politiques sinon la seul buy dem fenn toutes les sensibilités politiques ñëw toog ma ne ñëw leen ñu toog ñu waxtaane Sénégal fu ma mën di dem bi bi ma ci gën a remarqué mooy euh, Somone ñëpp ñëw kii représenté Pastef ñëw kii représenté euh, Cojer ñëw kii représenté Aïda Mbodj ma nga foon keroog ki jiite partem ñëpp ñëw toog ñu waxtaane Sénégal su ma leen waxee li ma bëgg ci Sénégal wax leen ni ma ko bëgg a defee ñoom it ñu wax ma ma dégg donte ànduñu ak man keroog bi ma demee bu Bousso à Touba ñu présenté ma ne ma kii moo fi jàppale PRP Déthié Fall ma nuyu ko ma ne ko Déthié suma frère la jàppale ko bu baax kooku mooy Pape Djibril Fall yenn saa yi ma dem fenn nit dajeek man ne ma man Pastef laa bokk ma ne ko c'est très bien jàppal bu baax kooku mooy man c'est-à-dire que gis-gis boobu laa am ci àdduna gis nga nekkuma ci politique xëy na ñi ma gën a xam trop dinañ ko xam pour bañante bi ak gis nga keroog dama dama dama lay jox beneen exemple keroog dama toog am ñu ma recevoir ñu ñëw euh, di rallier parti les serviteurs ñëw ñu toog waxtaan wax ma fi ñu nekkoon jóge fa bi ñu waxee ba pare am lu ñu wax ci leader boobu fi ñu nekkoon ma ne leen table jii nag bëgguma ñu fi wàññee àqu kenn bëgguma ñu fi waxee safaan kenn bëgguma ñu fiy toroxale kenn loolu bëgguma ko ñii ma jege ci politique xam nañ ne bëgguma lu dul di ci wax wala ma ciy def loo xamante ni jàmm la ak yiw la moo tax ma ne loolu sunu borom sunu borom ci alxuraan mais daf ñuy artu dafay alerter ci sur des dangers man danga nga ne da nga ne homme politique buy porter un discours moi je ne porte pas le discours j'ai alerté man li ma porté te ci loolu rek laa bëgg ñu ñëw mooy Sénégal rek waxtaane Sénégal waxtaane nañ la ñuy def ba Sénégal jóge fii am fu mu dem man loolu moo ma gën a intéressé les hommes politiques dafa am un danger qui nous guette mooy ban am un danger qui nous mooy ban euh, sectarisme euh, wax waxu waaso ah loolu yow yaa ko euh, wax c'est très bien waaw am un danger <laughs> mais loolu yow yaa ko wax moo tax ma alerté xam nga ba 2012 bon je sais pas euh, si j'étais j'étais j'étais aussi alerte mais j'avais pas remarqué ce débat là dañu ñëw ñu commencé voilà tukulóor yi ñu naan ne da ko bandum mais ay tooñ la ñun séeréer dañ naan okin pagum je sais pas si dégg nga séeréer ou pas dégg nga séeréer dañ naan okin pagum nit mbokkam hmm. voilà genre solidarité la solidarité agissante la alors l'affaire Penda Ba éclaté ñu jël ko manipuler ci te Penda Ba jëlul parole publique dañoo jël waxam teg ko ci place publique bi manipuler si indi ci loo xam ne Euh, kenn xamul lan la ñun sax on a failli être victime euh, de ce de ce de ce de ce ah, problème là loolu moo tax nag Maimouna li nga wax nii ah? yëpp Maimouna. après léegi le débat c'est autour de kii jola en quoi vraiment je, je ne dédouane pas Ousmane Sonko am mais en quoi Ousmane Sonko est coupable quand de Joola disent que. ñoom ñoom moom la ñuy voté. Maimouna yow moom ban responsabilité la ci am. Maimouna dama bëgg nga déglu nga pour nga mën a comprendre li may wax. xam nga wax nga pend ba ak ne manipulation am ci man xaw ma. si y la manipulation. non xam nga waaw loolu loolu loolu sa responsabilité la man le fond lay jël ma jéem ko ma jéem a xool lan lañ ciy def ba mu mën ñu jëriñ ak lan lan moo ñu ci mën a lor man dans cette affaire la li ma ci wax te ma koy re réaffirmer mooy damay artu ne loolu te boo seetloo sawaruma ci sax dama doon leeral rek ne loolu nañu ko bàyyi xam nga booy porter mbir da ciy sawar. da nga ciy nekk di wax tout le temps danga koy law fu ne nga dugal ko fa fu ne nga génne ko fa defuma loolu dama ci wax benn yoon j'ai alerté pare ci daal ne alerté naa ci te gis naa dama ko def ci ba pare ci laa gis les conséquences positives ma gis ne li ma wax am na njëriñ. est-ce que est-ce que porté woo sur la place publique un débat qu'on doit éviter. non mais je l'ai. ban lan mooy responsabilité d'un homme politique quand dans son fief les gens. Euh, le porte et décide de voter pour lui. Maïmouna dama ne. maax yow bu ñu duggee Wakaam man la ñuy voté Pape Djibril. Wakaam dinaa la fi dóor dóor yu métti <laughs> dóor yu métti laa lay dóor Wakaam. Eh, <laughs> ngeen ko. may nuyu ah, ah, ah, Pape Djibril may nuyu mais li ma bëgg a wax mooy. li ma li ma bëgg a wax mooy euh, Maïmouna man euh, wax naa ko léegi Sénégal rek laa am moom rek laa bëgg. lépp loo xamante ni dafay yàq sunu volonté commune de vivre en commun man damay dressé wu contre loolu. ak lu ma coûté nag dëgg rek man nekkuma ci ay par parparloo yi gars yi nekk nii nekk yàlla xam na ne nekkuma ci loolu parparloo yi gars yi nekk pour lijjanti ay mbir wala soit pour pour jéem a def de l'opportunisme ak yooyu man nekkuma ci yooyu man damay dox li sëñ Babacar Sy di wax naan ku ñëpp di xool da ngay jaar fu leer fu leer nañ lay jaar. waaw mais yéen homme politique yéen a installé ce débat là Aliou Dembourou euh, qui dit que on va prendre nos machettes on va défendre euh, le le le le mandat de. Maïmouna bëgguma de euh, wax waxu waxu joolaa yi Ousmane Sonko ne on utilise les mancagnes dans dans nu mu tudd dans une perfidie pour pour pour dañ kii diw mancagne la diw mancagne la ce son les hommes politiques ñoo nekk di ñu installé dans ce débat là. et d'ailleurs c'est bizarre ah y a que tu sais les séeréer ñëpp xaj xaj nañ ci ñoom y a que les séeréer qui ne sont pas dans ça mais hommes politiques yi yéen a bëgg a le débat sur la cohésion sur l'ethnicisme sur la place publique. a kan moo fi taxaw ne je sais pas si vous dama fi dama fi taxaw dama fi taxaw ne en fait li ngay wax sa opinion la sa responsabilité la man bëgguma ci dugg ñi nga fi tudd tamit tudduma leen man. man maa leen waaw c'est-à-dire que ñoom seen. voilà non non li ma li ma bëgg li ma bëgg a wax mooy responsabilité la man nekkuma ci loolu. moi je n'ai pas porté un débat j'ai alerté sur loo xamante ni jàpp naa ne mën na mën na mën na nekk les germe pour saper l'unité nationale moi j'ai été journaliste responsable am na ci loo xamante ni man duma ko bëgg a wax daan naa xam fukk benn lay wax daan nañ indi sujet yoo xamante ni dama daan ci am position boo xamante ni damay xool ndax lii mën na ndax lii lépp loo xamante ni dafay dafay préserver suñu vivre ensemble man loolu dama ci sawar ci lool rek lay dox suba ak ngoon guddeeg bëccëg bi ma naan fii amul titre foncier pour un homme politique au Sénégal loolu man ko fi wax daan ne benn homme politique warul am sens interdit ci réew mi benn homme politique mais j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres maintenant li ngay wax ne militant c'est quelqu'un qui milite justement du ku ñuy war a jàpp nañ ne ku am conscience mooy militer mais kooku waruñu ko bàyyi muy wax. tout mais la réalité tout autre au Sénégal. non loolu xaw ma ko yaa ko xam. xam nga ne la réalité. non non loolu yaa ko xam Maimouna yaa ko xam man li ma xam mooy. Ah? ku ma gis ku ma gis. bari na ñuy fëy fëy rek te xamuñu ci li ñuy dox de. moo tax man moo tax nag dañuy conscientiser dañuy yeete loolu lañ ci jublu. wax ne bu ñu jaar yoon bii baaxul yoon bii moo gën mais may mun a noonu la ñuy naqarloo man tey jii sama njaboot dama leen di wax ne leen nit ku ngeen wuteel xalaat donte wuute ngeen xalaat buy wax na ko bàyyi mu déglu man fi ñu ma yare yaruñu ma pour nit di wax ma koy yuux donte wuute nañ xalaat yaruñu ma pour nit di wax ma koy saaga donte wuute nañ xalaat yaruñu ma pour nit di wax may jël ay xeer di ko ko sànni ba toj sama vitre oto donte wute nañ xalaat loolu damaa bëgg loolu liggéey la boo xamante ni ñun ñëpp ci war a jàpp Sénégal bi ñu bëgg mais loolu mais li li jiitu ci sappekay cohésion mooy nit di wax nga koy yuuxu est-ce que noonu nga yore sa njaboot wala nit di wax nga koy saaga saaga dafa metti xam nga loolu doo ko def wala ngay saaga sëriñam wala ngay saaga kilifaam mais man yooyu fu ma ko gis dama koy dénoncer avec toute l'énergie bi nga xamante ni moom moo nécessaire loolu rek laa nekk di wax mais nekkuma di wax leneen lépp luy tax sénégalais xam boppam. mooy identité xam boppam lépp luy tax Sénégal ñu préserver te ñun loolu la ñu bëgg ñun on veut un pays réconcilié avec soi-même on veut un pays boo xamante ni réconcilié avec ses valeurs fondatrices avec ses pères fondateurs bëgguñu réew moo xamante ni dañuy saaga kilifa diine yi bëgguñu réew boo xam dañuy xas kilifa diine yi bëgguñu réew moo xam dañuy remettre en cause li nga xamante ni moom moo nekk le fondement le socle de cette nation encore une fois jàmm rek moom moo ñu jik te man ci jàmm jooju